ci seen émission bii di religion et société tey nag ñu tànn thème bu am solo ngir waxtaane ko muy wàllu ashirku billah muy bokkaale yàlla moo xam bokkale yàlla ci jaamu ko buñ ne bokkale rekk mooy boole yàlla ak leneen dafa bari ay façon nag mën nga boole yàlla ak leneen ci ak jaamu wala boole yàlla ak leneen ci ay wax donte sax jëfoo ko loo lañ bëgg a leeral incha allah ba buñ fi jógee mu nekk njëriñ ci ñun nekk njëriñ ci ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ndax ku ne xam na ne suñu réew yoon bi nga xam ne moom lañ jël ngir jaamoo ko yàlla te wuute wut ak alquran wuute wut ak sunna muy yoonu tasawuf yoon boobu nag la ko taxoon a jug mooy sellal leeral diggante nit ki ak boroomam ba nga xam ne nit ki dana egg ci boroomum am li mu bëgg te maanaam am ko nim ko bëggee ci coobaru suñ boroom tabaraka wa te yoon boobu nag mooy yoon bi nga xam ne moom lañu ñu mag ñu baax ñi tegaloon ñu fekkoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam loolu danañ ci gën a leeral incha allah lan moo tax nag ñu indi thème bi mooy jaxasoo yi nga xam ne am na ci jaawale gi nga xam ne dem nañ ba ñu xamul di ko jaawale yoon boobu di yoonu tasawuf di ko jaawale ak bokkaale ak ñi nga xam ne ñi ngi woote woone ñi ngi ci biir yoon boobu ba pare di def yoo xam ne day tey xel moo tax ñu indi waxtaan bi incha allah danañ ci gën a def ay njàngat ci loolu comme niñ ko waxee rek buñ ne ashirku luxatan ci waxu arab mooy nga jàppal yàlla moroom nga jàppal yàlla moroom koo xam ne nee nga mook yàlla ñoo tolloo ñoom ngay boole di leen jaamu wala nga ne kii ndend suñ boroom la tabaraka wa lu mu mën yàlla mën na ko lu yàlla mën rek mën na ko bu mu ci yooyu nag suñ boroom tabaraka wa taala ci ay ayat yu bari ci alquran moytuloo nañu ko ñu ngi jàng ci alquran ne fala tajaalu lillahi andaadan wa antum taalamuun bu leen defal yàlla ay ndend te ba ngeen koy def xam ngeen ko kon ni nga xamee ne kon ñu bari ci nit ñi réere nañ ko ñàkk xam ñàkk xam ngir euh, euh, réeral goo xam ne ña leen jiite ñu teg leen comme seeni sëriñ réeral nañ leen ko ndax sëriñ ñaar la rek sëriñ bi nga xam ne daf laa wan yàlla ak sëriñ bi nga xam ne daf laa woon boppam xëy na suñu mag ñi ñoom euh, kaanu ala sunnati algarra ñi ngi woon ci yoon bi nga xam ne dafa leer te jub ci lañ doon woon nit ñi di leen ci teg waaye xëy na nag bañ fi jógee am na ñenn nag ci seeni sët ñoo xam ne xëy na teguñ seen tànk fa mag ñi tegoon seen tànk ndax xëy na àdduna moo leen jiital wala leneen te bëgguñoo bëgguñoo tamit ñàkk mbooloo mi nga xam ne ñoo toppoon seen maam seeni sët ñooña dañuy bëgg ñu topp leen ba léegi ci loolu nag dala leen jaral ay pexe yu nekk ñu def ko ngir dese nit ñooñu donte sax ñoom mën nañ ci dem ba ñoom lañuy def ak seeni maam lañ doon def ça n'a rien à maanaam amul lenn loo xam ne moo leen lënkale loolu nag mooy indi yenn dérive yi ndax danañ leen gëm looloo xam ne amul ñoom it ci seen ñàkk xam ñu topp leen ca loolu nag war na képp koo xam ne boroom xam-xam nga képp koo xam ne dangay wax ñu lay dégg nga jéem ci yee nit ñi d'abord mu nga commencé sax ci yar nañu yare njaboot gi xamal leen lu baax ak lu bon ndax top go xamne dang koy top nit top go xamne taatun am lañ koy wax top nit aveuglement koku amul ci diine diine boy top nit dang koy top ak xel donte sax gem nga ci xol bi lay nek la taxone ñu top suñ mag ñi moy yalla jo xamne yaakaaroon nañ ko ci ñom ñu gën ñoo xam yalla wan ñu yoon bi bañu egg ci yalla comme ñom loola nag buñ demee ba gisatuñ ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy wuyoo ay sëriñ ci jamono dañoo war a taxaw xam fan xamaat fan lañuy teg suñu tànk te loolu dara jiituwu ci lu dul euh, dara jiituwu ci euh, dara jiituwu ci jàng dara jiituwu ci sàkku xam-xam ba xam fan la teg suñu tànk kan lañ war a topp ak kan lañ warul topp hakaza kon kooku lu mat a bàyyi xel la kon daal dérive yooyu kon li koy indi mooy ñi nga xam ne wut mbooloo kese moo leen yitteel waaye leneen yitteelu leen ñooy dem nag bay dugal nit ñi ci yenn wax yi ak yenn jëfin yi nga xam ne dëppoowut ak sunna dëppoowut ak alquran su boobaa nag ñi nga xam ne ñoo contre yoon wii di tasawuf taxaw fee di wax amulay ci suñu kaw fekk nag loo xam ne dañ ko cee boole la mais bokk ci kon loolu lu mat a bàyyi xel la xaaju bokkaale yàlla nag dafa am ñaar ak shirkul akbar ak shirkul asxar bokkaale yàlla gu mag ak bokkaale yàlla gu ndaw bu njëlee exemple ci bokkaale yàlla gu ndaw bokk na ci ngistal ngay jëf-jëf joo xam ne yàlla taxul yàlla taxul mutlaxan xëy na danga bëgg nit ñi gis la walla kontaan ci yow wala lu mel noonu kooku shirkul asxar la shirkul asxar boobu nag euh, mën naa dem ba génne nit ci diine te du ko yëg am na yeneen xeetu shirkul asxar xam naa danañ ci ñëwaat incha allah bu dee shirkul akbar nag mooy nga jël yàlla moom moomale ko keneen yàlla moo moom bind moo créé asamaan moo créé suuf moo créé doomu aadama yow nga ne sama sëriñ moo créé asamaan ak suuf moo créé doomu aadama kooku bokkaale gënu koo màgg te képp ku ko wax rek génn nga ci diine boo tuubaatul yow boo dee ci kéefar nga dee muy lu doy war muy lu mat a bàyyi xel tamit euh, képp koo xam ne aussi participer nga ci wax googu nga wax walla nga jëf ko sax euh, ba ba mu siiw moo xam média nga yor wala loo mën di yor nga siiwal ko yow yàq kooku yéen a yem àtti ndax yaa ko yeggale foo xam ne waru faa egg ndax képp koo xam ne day def safaan ku la ca jàppale ku nekk ci safaan bala bokk kon kooku lu mat a bàyyi xel la bàyyi la ko xel suñu média yi ndax Sénégal day dem ci fan yoo xam ne sax dangay ngay ragal a seetaan télé ndax dalay wóor ne boo seetaanee tele wala nga déglu rajo da nga dégg ñu wax ay bokkaale yoo xam ne loo xam ne ça n'a voir avec euh, diine bi ñuy dund mooy lislaam bokkul ak dara sunna yonent bi bokkul ak dara alquran kon kooku média bi am na ci part de responsabilité bu mag a mag a mag lu mat a bàyyi xel la comme ñoom ni ñuy waxee ne éthique ak déontologie information buy dugg dañ ko war a segg information buy bu ñu war a génne dañ ko war a segg avant ñu koy génne kooku tamit war nañ cee boole diine ji waaye bu dee diine ji lu ñëw ñu jàllale lu ñëw ñu jàllale euh, ngir ragal ay nit wala ngir euh, ragal seen euh, lay dugg seen poche wàññeeku wala yu mel noonu su boobaa loolu ça pose problème bokk na ci loo xam ne day yàq société day réeral nit ñi bu ñuy teg ay boroom xam-xam ci tele bi aussi nañ seet ñoo xam ne ñu jàng lañ ñu am xam-xam lañ ñu ko mérito lañ ñu teg leen fa waaye ñoo xam ne xamuñu dara ay daanukat lañ ñoom ay wutkatu xaalis lañ ay businessman lañ lañuy wax ci sëriñ ba ñom moy toyal sen ceeb seetatuñ ci yalla seetatuñ ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nañ wax rek nit ñi di daanu di mbëk miiri ha ah, sen seen poche di fess ñu mel non kenn waru len invité ci télé yi réew mu tass ñoko tass tariixa yi indi par parlo ci diine ji kese moy sen yitte moy sen mebet alors que borom xam-xam yu sel yaa fi ño xam bu ñuy wax mën nañoo teg nit ñi au juste milieu ñu xam lii lii la nangam nangam la parce que tasawuf tarixa yi lu mu bëri bari bari ñoom ñëpp ñoo bokk benn naanuwaay buñ ko tegee ci yoon ñoom ñëpp ñoo bokk benn naanuwaay waaye nag buñ jëlee genre nit yooyu ñu dugal ci àdduna dugal ci loo xam ne bokk ci su boobaa loolu mooy indi yenn jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi am ci diggante turux yi donte ñoom ñëpp benn naanuwaay lañ ndax boo gisee seeni wax seeni mbind ñoom benn wax bi lañuy wax nan la nit kiy def ba not bakkanam ak ay bànneexam ba egg ci suñ borom bi tabaraka wa taala kon lu mat a bàyyi xel la euh, day am solo aussi ñuy indi li nga xam ne mooy waral nit ñi di gëm yenn wax yi ba mu leen di dugal ci bokkaale ñu dem sax ba di ko ba di ko jëf kon loolu mooy ashirku al asgar mooy nga wutal yàlla nga jël loo xam ne yàlla moo ko moom yàlla rek moo ko jagoo nga moomale ko nit moo xam ci jëf nga ko ko moomale moo xam ci wax nga ko ko moomale ak euh, akbar nag dafa am bu feeñ ak bu nëbb bu feeñ ba mooy ñi nga xam ne dañuy jaamu xéram ñi nga xam ne dañuy jaamu ay xéram kooku moom dafa feeñ dañ koo feeñal buñu ko euh, niki noonu tamit ñi nga xam ne am na loo xam ne dañ koy tuddee shirku tamit euh, fekk du shirk loolu tamit mat na leeral mooy ñi nga xam ne almutatarifin lañ xëy na seen déggin soriwul ñoom zahir rek lañuy dégg amuñ euh, xawmu seen basira xëy na dafa leerul ñooy dem ba ne kon topp sëriñ ci shirk yi la bokk donc ñoom dañ koy def ndax am nañ seeni ñoo xam ne ñoom lañuy topp def leen seeni njiit waaye keneen bu ko defee loolu shirk la kooku tamit mina taassub mooy ci par parloo la bokk man li ma ni sama déggin rek moo wér mais dégginu keneen wérul day dugg ci li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne man taassaba fa laysa minna képp koo xam ne yaa ngi indi par parloo yaa ngi par parloo kooku bokkoo ci ñun par parloo nag mooy li ma gëm rek mooy dëgg li ma dégg rek mooy loolu ku ci nekkul rek yaa ngi ci shirk wala yéefar nga te képp koo xam ne yéefarloo nga nit wala génn nga ko ci diine yow ci sa bopp génn nga kooku la na wax lu mat a bàyyi xel ci lañuy dem kon banaan euh, ziyaare ay bàmmeel ñoom jàpp nañ ne kon bokkaale la te yonent bi sallallahu alayhi nee na wax na ci xadis ne tere woon naa leen ngeen ziyaara ji ay bàmmeel waaye tereetu ma leen ko léegi ndax daf leen ñu fàttali dee nga dem di ziyaare bàmmeelu nitu yàlla ñaan ci barkeem moom ku tëdd foofu donte sax dundatul ngir yàlla may la nangam ak nangam nekkul moom ki tëdd nga ñaan waaye yàlla suñ boroom nga ñaan ngir mu may la kooku sore na ak bokkaale sore naag bokkaale ñaan ci barke nit ñaan ci barke nit ndax barke bi yàlla moo ko bind ngir mu may la nangam kooku du bokkaale kon kooku mat na bàyyi xel doonte sax nekkoo ci bàmmeelam nga ne yàlla na ma yàlla may nangam ci barke diw lan moo tax ngay tudd barke bi jege gum la gën a jege yàlla yaakaar boo am ne yàlla nangul na ko moo tax ndax kon la nga yaakaar ba ñaan ci barkeem yépp génnul cadre yàlla kon joxoo ko loo xam ne yàlla moo ko moom dendale ko ak suñ boroom kon su boobaa loola dara nekku ci euh, bokk na ci tamit li nga xam ne mooy euh, euh, xaf yi mooy bokkaale bu nëbb bokkaale bu nëbb dañ koy jël misaal ci comme ñi nga xam ne ay naafeq lañ wala ñi ñuy tuddee ay zandaxa Ah, bi yonent bi sallallahu di dund ay munafiqin lañ leen doon woowee waaye bi mu fi jógee ay zindiq lañ leen di woowee ah, jamu bi moo lay jox zandaqa ñooñ nag su boobaa seen bokkaale ndax ñoom mooy képp koo xam ne da ngay feeñal na jullit nga waaye dangay ngay nëbbu ne yéefar nga boo wéetee mën nga def loo xam ne ay bokkaale la mais da koy nëbbu moo tax ñu tuddee ko kon ah, bokkaale bu nëbbu kooku tamit dana dugal nit safara hakaza niki noonu tamit am na bokkaale ci pas-pas euh, ci pas mooy nga fas ne yàlla de ku am kàttan la waaye diw mi nga xam ne tamit moom laa gëm moom it boroom kàttan la lépp lu yàlla am rek am na ko kookoy su boobaa bàyyil yàlla rek nga topp diw benn la kooku pas-pas bu yàqu la lu mat bàyyi xel la bokk na tam comme ci niñ ko waxee woon sànq mooy nga di ko wax saa nga jëf ko mooy bokkaale yàlla ci ay wax bokkaale yàlla ci ay wax nag bokkul ak nga xettaliku ci nitu yàlla bokkul ak it bokkul it ak nga def tawassul ci moom yonent bi sallallahu dafa toog benn gumba ñëw euh, am lum ko sàkku ci aaju mu ne ko demal nga julli ñaari raka nga def tawassul ci man maanaam nga def intermédiaire nga def ma intermédiaire sa diggante ak sa borom nga jaaree ci man ngir sa borom may la sa ajo bi loolu mooy tawassul mu julli ñaari raka def ko kooku xadis bu wér la boo xam ne mi ngi ci téere xadis yi gën a wér te mooy ci buxaar yi ak ci muslim comme loolu am na nag ci jamono yonent bi sallallahu mënuñoo taxaw fee na tawassul kon dafa dafay nekk bokkaale déedéet mooy euh, ndax yàlla lépp ci tawassul la ko defee ci àdduna fiñ toog nii di wax ngir nit ñu dégg ñu li wasul la jaaruwaay la ngir li ñuy wax nit ñi mën koo jëriñoo euh, yàlla lan moo tax bi mu mee sos nit jékki-jékkiwul rek di créer ay nit comme ça wala ñuy wàccee ci asamaan di daanu wala ñuy génné ci suuf waaye ku nekk dafa am fu la jaarale ba nga nekk li nga nekk tay lool tamit way la moy tawassul kon aduna lepp ci tawassul lay dox na nak ci kon sa digënté ak sa borom yow mi nga xamné ne ngi jàpp ne tilim ci ay bàkkaar ta ku nekk lool nga wara japp ngay am yaqin te yaqin du dara ludul de lo loo leneen ludul lool rek su boba yëg nga sa bopp te su boobaa say jaamu yàlla du dem fenn loolu la ñuy tuddee kon sellal ci tasawuf maanaam dàq yéem sa bopp dàq ngistal dàq mbooleem loo xam ne dana tax iblis mën a am bunt ci yow ngir yàqale sa jaamu yàlla su boobaa na nga jàpp da jàpp ne yow kii nii moo la gën a jege yàlla nga ne xaaral ma jokk ci moom ndax moom xam na yoon bi mu awale ma ci yoon bi ba ma egg fu mu egg koku moy tawassul ci jaamu ci walu jaamu yàlla koku kon ken munu ko dak ndax ay alquran ñëw na nee na yaa amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila su boba nak walu istighasa moy xetaliku ci ci sa borom ci ñaan ba sax xetaliku def tawassul ci jëf ju baax jo def koku sax day wér wa ndax yunus sallallahu alayhi wasallam mi ngi netal ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari ak muslim Euh, ña nga xam ne dañoo demoon di wuti euh, dem ci àll ba di wuti matt wala am lu ñuy wuti di rëbbi comme niñ ko nettalee ci ahadis yi ñu dem ba dugg ci benn xunt ngir naaj bu tàng wu leen sonaloon léegi nag am benn xeer bu jógee ca kaw daal di fatt buntu xuntum amatuñu nu ñu def pour génn pexe amatul la leen fa génn mooy ku nekk dang ne dañ ne ku nekk na seet jëf ju baax joo xam ne daf koo defoon te yàlla rek tax ngistal amu ca yëg sa bopp amu ci nga xettaliku ci jëf jooju ngir yàlla mën ñoo musal génn ñi ci place bi ba ku nekk ci ñoom xettalikoo kee ca jëf ju baax jum doon defal way juróom kee mooy yàlla goo xam ne naroon na ko mooy ak jigéen ci jamono boo xam ne jekku na ndaw sa mën a mooy ak moom yàlla waaye xelam delloo siwaat mu bàyyi ko te yàlla rek tax kee ci ay nit ñum doon liggéeyloo fay ñëpp ba kenn des gisu ko mu dencal ko ko investiral ko ko ci ak jur ba loola bari ba mu ñëwee mu jox ko lool yépp te desalu ci dara yàlla rek tax ku nekk ba nga ko ci sa jëf jooju nga defoon yàlla daf leen teggi ci balaa boobu ñu nekkoon jëf nag doomu aadama moo koy def kon doomu aadama moo gën jëf kon xettaliku ci jëf bu amee kon xettaliku ci ki nga xam ne moo waral jëf war a am kon kooku lu dagan la kooku kenn du ko dugal ci bokkaale bokkul ak bokkaale yàlla waaye nag il faut nga xam naka lañ koy defee parce que ay sew-sew la kon kooku lu mat bàyyi xel la euh, ni ki noonu tamit liñ naan shirkul afaal boros nañ ko ci biir wax ji mooy ngay jaamu yàlla wala ngay sujootal uh, ngay jaamu keneen ku dul yàlla wala ngay sujootal keneen ku dul yàlla ak yu mel noonu kon kooku lu mat a bàyyi xel la kon uh, ñu ñëw ci ñaareelu xaaj bi te mooy ashirkul asxar mooy lépp loo xam ne daf lay teg ci yoon woo xam ne da lay yóbbu ci shirkul akbar lépp lu lay teg ci yoon boo xam ne boo ko toppee danga wutal yàlla ndend da nga momale nit lo xamne yàlla moko mom lépp lu lay tek ci yoon bobu rek koku lañuy tuddé kon ash-shirku al asghar bok na ci shirku al asghar euh moy lo xamne jaaru way la sabab la moy huwa al iman bil asbab allati lam ya'zan Allah subhanahu wa taala biha wa moy sabab yi nga xamne yàlla dafa tere maanaam loo xam ne yàlla dafa tere doom aadama jëfandikoo ko ngir faj aajoom nga jaar ci ngir faj sa aajo kooku dafa xaram kooku bokkaale la bokkaale bu ndaw la ndax mën na laa yóbbu lan ci bokkaale bu mag niki noonu tamit bokk na ci màggal yenn mbir yi ba jëme ko ci daraja yàlla màggal dara wala màggal nit ba jàppee ko muy sa yàlla kooku tamit ci shirkul asxar la hakaza kon kooku yooyu lu mat a bàyyi xel la bëri na ay ay ay façon bokk na ci nag li ñuy tuddee shirk ba léegi te du bokkaale mooy euh, ay xeetu ñaan par exemple léeg-léeg nga dégg ku ne takk téere dafa xaraam takk téere shirk la ah, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na Euh, man àllaqa tamiman fala atamma llaahu la képp koo xam ne takk nga li ñuy tuddee tamim yàlla bu yàlla mottali ñoom tamim boobu dañ koo firee téere ndax araab yi dañ naan takkal seen doom yi ay loo xam ne du dara ay béjjën nag wala ay yax walla yu mel noonu naan pour buñ màggee ñu dëgër ak yooyu daf leen ni defal nangam ak nangam loolu moom dafa xaraam mutlaxan ndax du yàlla du yonent bi amaa takk alxuraan wala sangoo ko wala nga def ci leneen wala nga naan ko yooyu wala nga di ko sax raayoo kooku mënul bokk ci bokkaale yàlla ndax waxu yàlla la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy gàddaay jógee màkka jëm madinatul munawara yàlla dafa wàcce ci moom alquran suratu yaasin ba yubsiruun moom la tari def ko ci suuf daal di koy suuy ñi nga xam ne ñoo toogoon ci buntu këram ngir bu génnee ñu faat ko ba sax dañuy nettali ñu ne képp koo xam ne suuf si laaloon na la rek ci sa kaw kaala sax dugg nga ci lislaam ngir barke ba lan moo tax nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam tariwul yaasin noonu rek dem yoonam lan moo tax mu def ko ci suuf ak ko jox leen ko koku kon day layal li nga xamne moy bind alquran takk ko day layal bind alquran sangoo ko day layal bind alquran nit nan ko li gëna a dëgër ci tektal bobu moy ay alquran bi wax ne ban auzu billahi minash alsheytaani rajim wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil muminin dañu wàcce alquran mu nekk safara nekk yermane ci ñi nga xamne dañu gëm buñ ne shifa shifa boobu mën na am zahir ak baatin boo koy jàng dégg ko di ko jëfe saafara ci sa xol day leeral sa xol ba bépp jàngoro bu nekkoon sa xol dana ko dindi muy rëy muy ngistal ak lépp loo xam ne du yàlla tey nekk ci xolu doomu aadama di dox digganteem ak yàlla dana ko dindi ndax loolu dañ koo considéré comme ay feebaru xol niki noonu tamit zahir bi mën na nekk nga feebar bind alquran ngir wa nekk gim nekk waxu yàlla nga naan ko wér wala nga ragal dara nga takk nga bind ko takk ko ngir mu musal la ngir lan waxu yàlla la ndax wasiila la jaaruwaay la ngir mucc nga takk ko ngir mucc day dugg ci shifa boobu day dugg tamit ci yërmande boobu hakaza kon kooku lu dëgër la dalil bu dëgër la même sax bu fekkee alquran yi da ko booleeg leneen na ko booleeg leneen takk wala da ko booleeg leneen naan su boobaa tamit barke alquran moo fa nekk mooy jël gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëloon suuf tafli ci ndax suuf ku nekk xam na ne mbindeefu yàlla la tamit mu jël ko tafli ci alxuraan kon kooku boo boolee alxuraan ak leneen it euh, te façonné leneen loola moo la defal li nga am su boobaa kon loolu lu mën a nekk la kon kooku ay sew-sew la yoo xam ne faaw ñu di ko leeral nit ñi parce que am na ñoo xam ne ñu ngi koy wax di ci réeral ay doom aadama fekk xamuñ li ñuy wax lan la buñ ne tamim mooy loo xam ne du alxuraan takk yax wala takk béjjën wala takk loo xam ne amul benn lien ak waxu suñ boroom amul benn lien ak waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte sax la nga takk ñaan la ak ñaan la goo xam ne ñaan yàlla kese la sax waaye am nekkul loo xam ne ay jet la wala ay wax yoo xam ne kenn xamu ko ay njabar yooyu su boobaa loola dagan na nga takk ko dara du ci bokkaale su boobaa kon kooku lu mat a bàyyi xel la euh, ñu bëggoon cee kon leeral kon daal ci tënk rek ñun ñi nga xam ne dañoo tënk ci ay tariix gëm tasawuf kon nañ gën a bàyyi xel suñu bopp nañ ba gën a bàyyi xel ni ñuy toppee suñuy sëriñ yi nga xam ne yaakaar nañu ñoo ñu mën a yóbbu ci yàlla gëna xamé tamit ñi nga xam la ñoom lañ wara top ak ño xamné waruñ leen top ndax ki nga xamné mo la wara yóbbu ci yàlla lépp lo xamné jaamu yàlla la mo la ci wara jitu jiitu bi sallallahu alayhi wasallam de sahaba yi mom lañ toppoon ngir mu yóbbu leen ci yàlla ndax qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah bu fekkee da ngeen a bëgg da ngeen a bëgg egg ci yàlla da ngeen a bëgg bëgg yàlla na ngeen ma topp ndax yàlla bëggal leen boppam te al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon ñoom lañ war a topp ngir egg ci yonent bi mu yóbbu ñu ci yàlla yonent boobu nag sallallahu alayhi ba ci ay fanam yu mujj mosuñ koo gis mu ñàkk julli ci mbooloo mosuñ koo gis mu ne def naka su dul noonu lépp lum doon digle moom yonent bi sallallahu alayhi moo ciy jiitu ba tax na bañ laajee Aïcha mooy kan مو النبي صلى الله عليه وسلم دفن كان خلقه خلقه القرآن أو كما قال أو كما قالت دفن جيكو مو نيكون القرآن ينن نتلي دي وحني نيكون القرآن جو خمنا دي دخ مو النبي صلى الله عليه وسلم كون كيب كو خمنا ورنين لا توب دنگا ورن نيك القرآن جي دخ دنگا ورن نيك كو خمنا دنگا روي النبي صلى الله عليه وسلم يتوب لچي لولو hakaza kon suñ mag ñi noonu lañ leen toppoon ku ci mel ni Sidil Hadj malik teel naa avertir nit ñi ci loolu Sidil Hadj Malick boo xoolee ni mu wàccee boppam ak li ko yàlla may li mu am ci ay maqaama bu fekkoon wan na nit ñi tuuti ci boppam rek su boobaa kenn waxatu ko waaye dafa bàyyi lépp wan nit ñi yàllaay kese nga xam ne bés bu fi jógee képp koo xam ne topp nga yoonam wala yaa ngi ko gëm ba léegi ca loola ngay nekk giiru dundam kenn mësu koo gis mu wuteeg julli ci mbooloo kenn mësu koo gis mu def loo xam ne dafa wuteeg sunna mukk kon sëriñ yu mel noonu lañ soxla waaye sëriñ boo xam ne doo ko gis ci jàkk ja du julli mbooloo doo ko gis ca géewu wasifa ba ah kon kooku lan nga koy toppee lan nga koy toppee kon kooku lu mat a bàyyi xel la nañ xam ñi ñu war a topp ak ñi ñu warul topp te topp nit pour topp ko nii rek amul waaye danga koo topp ngir mu eggale la ci yàlla loolu toujours nañ ciy bàyyi xel kon kooku lu mat a bàyyi xel la ak tariixa boo mën di bokk nag ak koo mën di gëm loolu lañ la sant ci moom bu loola amul rek su boobaa mën ngaa jël yoon boo xam ne dana la dugal ci bokkaale moo waral yenn wax yu rëy yi ngay dégg dañ cee gis ñoo xam ne sax nee nañ tariixa sàngam lañ bokk waaye duñ julli faalewuñ julli wala bokk buñ koy def nu leen neex lañ koy def sax damay julli waaye sëriñ bi moo tax may julli waaw gis naa koo xam ne nee na moom sëriñam moo tax muy julli day ngir sant sëriñam xam nga ko julleem nga amu ci dara li tax nag ñu gën a insister ci thème bii dafa am ku ma woo fan yi passé ne ma man daal dama bëgg a bàyyi tarixa benn yoon rek ndax li may dégg ci ay bokkaale ak wax yiñ ciy wax te man dama bëgg a wéetal sama borom waaw seetalal bu demee ba ay nit ñu xamul sax dem bay sikki sàkk ci liñ nekk kon affaire bi situation bi dem na ba toll foo xam ne léegi mu jéggi dayo kon borom xam-xam bi nañ génn nañ ci wax waaw di ci gën a garaaw nag ay nit ñoo xam ne ay mbooloo ñoo leen topp ñooy génn di wax ay wax yoo xam ne ay wax yoo xam ne dafa dérapé ba mu ëpp kon ñooñu kenn waru leen déglu kon nañ xam ne ñiy déglu ak ñi njul déglu média bi Euh, ñi nga xamne ñoy euh, jotale kàddu yi fo xamne waru fa egg euh, fo xamne warna fa egg ñu xam ñan lañuy jox kàddu ak ñan lañ ko dul jox ñan lañuy jox importance ak ño xamne waru leen ko jox baña top rek buzz bi kon koku lu mata bayyi xel kon bu ko defé lool mo nekkon kon waxtaanu tay bi lepp lu ci leer kon ci suñ borom la lu ci lendam ci ñun ñi ko doon waxtaane la suñ xam-xam ak suñ ñak fasaha di jaale suñ benn maam bu génn àdduna suñ benn maam bu baaxoon alxaaji Alioune Sakho mu génn àdduna ci semaine bi ñu di ko jaal di ko ñaanal yàlla muy ku bëggoon diine ku bëggoon lu baax yàlla yërëm ko yàlla xare ko aljanna di ko jaale tamit njabootam nga xam ne dañuy bégg émission bi bu baax euh, Ibrahima Sakho ñu ngi ko koy jaal di ko jaal euh, Ousmane Sakho nga xam ne day topp émission yi bu baax a baax sa buñ togué dañuy fatali lu bari eh, di diko ko jaal lu bari di jaar tamit suñu tonto amet dañuy top, ak mbolam ñi nga xamné njabotam lañ ñep ñi ngi leen koy jaal suñu yaay eh, aji saxo ak suñu frère yi nga xamné ay seut lañ ci mom di leen ko jaal ñom ñep insha allah kon li mo nekkon waxtaan bi di gërëm di sant mbolam ñi nga xamné ñi ngi ñuy di bëggé waxtaan yi آه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته